Petit maa lay nuyu. doom day maa lay fay bàyyi jili sama xarit bi. maay sant baax a baax a baax. noo gisee lamb ji. waaw neex rek si Nour Niang xam nga moom tamit dafa yàgg ci lamb di école. su tegee lamb normalement dafa war a fees dafa war a neex parce que lim def lamb kenn. non maa ngi waaj le 26 juin Ada Fass Coly Faye xam nga le 26 ñëw na. ay fan a ci des. ñoo ngi koy waaj comme ni ñu ko doon yi parce que arène nationale ñu teg ak xale yi bool bu ñu demee dañu jox loolu noonu parce que lamb nag da koy toog ba mu ñor nga doo koo yegg mais Ada Fass qualifié boo na kat loolu rek loolu ngi waxtaan groupe whatsapp yi di ko waxtaane fépp ci àdduna di ñaan yàlla suñu borom defal ñu jàmm ak salaam rek bon excellent soin lan xaar ci wàllu ambiance cosaan ak innovation bu bees boo xamante ne ñu ngi koy indi damay indi art parce que damay indi nga xam ne dañoo mosuñu ñu ci la. te projet boobu dama koy commencé le 11 incha allah damay def face à face fii nii fii si stade Iba Mar le 11 juin à partir fii laay teg teg El Hadj Kay defale teg Bastoun teg xale yi ñuy ngeen ngeen koy conseiller journaliste parce que da ngeen da ngeen a namoon loolu jour lamb ja may leen waa Kër Mbaye mu mel ne leen jour lamb ja woo waa waa Ngor ak Koudia Sylla moom tax seen i sër ñu neexal loolu daal laay xaar ci bés bi. cosaan ak ma jógee foofu ma ñëw la seet Iba Mar Diop sama saison. mbaa yëmbal mais loolu maa ngi sant samay maa ko sama tailleur bi wëz kenn du moom ci réew mi il faut muy bu la fa il faut muy bu la fa Medina nekk fii 43 boore lo os kii boo neexee mu sool la sama xarit la jeex na sama yaa fi ne kenn maa ngi numéro un dinaa leen duma duma. moo di